الحمد لله الحمد لله الحمد لله jërëjëf euh, sëriñ bi ñu ngi lay ziara Mbacke euh, maam Cheikh Mbacke tey lan mooy tànk yi fii ci Medina Baye. ok euh, bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala sayyidina wa nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman ñu ngi tàmbalee suñu kàddu yi xam inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yaakaar naa kàddu yi ko dégg ñu commencé ko hmm. da nga xew-xew bu màgg bi nga xam ne wala xew-xew tiis bi nga xam wàcc na ci umma islamiya rawat na euh, Sénégal muy suñu bàjjan sunu bàjjan la ci ñun muy Seyda euh, Fatima Zahra al Kubra di waajur ci euh, radiallahu anhu imam Hassan Cissé waaye di waajur ci al imam al Haali Euh, al imaamul kabir di Cheikh Ahmed Tidiane Cissé di sunu xarit di sunu wëllëre euh, ñu ñëw kon jóge tey euh, dakaar ànd ak délégation AIS bu mag ni ngeen ko xamee aljamia al islami xidma tasawuf mm-hmm. ànd ak sëñ Babacar bu jàmmal nekk bi su bet ànd ak sëñ Momor Sarr mi nga xam ne yéen ñëpp xam ngeen ko mu nekk fii Kaolack mm-hmm. di kilifa diine waaye di borom xam nekkal AIS fii bokkook ak sëñ Ibrahima Niass mi nga xam ne lew Léona Niass ak sëñ Ahmad Khalifa Niass mi nga xam ne suñu baay sëñ Arabi Niass mooy waajuram kon ñu tey ñoo ñëw ngir indi njaalum AIS AIS nag mooy kuréel gi boole tariix nekk Sénégal yëpp mu xaalis tijaan laay yaakaar ni ñëpp xam ngeen ko penc bi tam xadara miin nañu ndax depuis 2015 ñu taxawal ko euh, lañ euh, bi ñu def tourné fii lañ euh, ci fii penc yi njëkk ñëw fii ci la bokk kon sa gàmm ak lu xew muy xew jàmm dañu ñëw bokk ak yéen xewu tiis yi am nag mën nañoo toog Touba sax jaale ko suñu bopp mën nañu toog jàmmal wala Tiwaawoon fu mënti doon waaye ñu ko defee barki dem dem Tiwaawoon ci Pape Malick Sy dem noonu la ñu wax ne dañuy ñëw fii jaale suñu bàjjen bi nga xam ne euh, ñëpp xam nañ ko li ñu kuy dund kenn du la xam bu faatu ñu xam la euh, doy na sëkk rek ñu ne euh, Seyda Fatima Az-Zahra mooy waajur sa imaam Assane Cissé imaam Assane Cissé yàlla ko yàlla doon leen ñëpp xam nañ waaye bu rëy bi nga xam ne moom la taxawoon ci adduna bi laay wax ak mission maam ja ni mu ko doon yaatale ak ni mu ko doon tase adduna bi ba ñëpp xam ko ndax daanam daje tukki yu bari fu mel ne Afrique sud xam nañ na mu fa na mu fa yaatale faydu bi fu mel ne Europe ak Amérique ñëpp xam nañ ko macha allah tabarakallah kon doy na sëkk ñu ne kooku Seyda Fatima euh, Zahra radiyallahu rahimahullah mooy waajuram waaye ki fi nekk tey mu imaam Cheikh Tidiane Cissé ngeen gis ko léegi bu yéeme boo xam delluwaat na ñëpp yàlla subhanahu wa taala delluwaat ñëpp ci ci tawxiid delluwaat ñëpp ci jëf ak rafetal kon doy na sëkk ñu ne kooku waa euh, waajuram euh, ku baax la woon muy Seyda Fatima Zahra waaye sëñ Mahi Cissé ñu ngi koy jàll tamit porte parole ñu xam ko ci xam-xam bi xam ko ci euh, baax di ak tey ji hmm. loolu lépp nga xam ne kon ñetti jëmm yu sell yi ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom la ñoom la maanaam maanaam jur ñoom la ñoom ñoom la ñoom la njaboote hmm. waaw ñoom ñoom la jarate hmm. kon da xam ne kon kooku nit ku sell la nit ku baax la bokk na sayyidaat yi nga xam ne mën nañ koo yéegal ca Seyda Aïcha ni mu taxawoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye mën nañu ko yégal ci Sayda Fatima mi nga xam ne rondoom la waaye Sayda Khadija mën nañu ko ci yégal kon moom mii dafa bokk ca ñooñu xam ñooñu la roy ndax réew mi senegal damay wax ne euh, duñ jéggaani dara ndax bu dee soxna yu baax yu sell ñi ngi fi ñoo xam ne jigéen mën nañoo roy ci ñoom mm-hmm. Sayda Fatima ci moom la ñoo la bokkoon kon nag ñu indi njàll mi ayes waaye di ko yëkk di ko teg nag di waatu buy tamit ab waa bi mooy la xalif bi général xadra euh, euh, maanaam ak Ibrahima mais sëriñ si Ahmad Tidiane Niass mi nga xam ne moom tamit suñu waajur la suñu lépp la ñu teg ci loxo am di ko indil njaalum ay di ko indil njaalum kilifa diine yëpp tey mën naa wax ne euh, xalifa généraux yu fi nekk yëpp seenu njaboot ñoo indi seenu njaal da ko dale sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla fi yàgg wér sëñ Babacar Si Mansour sëñ Jaamal sëñ Cenaba sëñ Njaasaan sëñ Layen kon ñun ñoo ñëw wuutu leen nekkal leen fi ñëpp xam ne mission AIS e du dara lu du patrimoine bii ñu fi bàyyi ku ñëw mbiri na xam ne ba fa Alaaji Ibrahima si jógee euh, melut woon nii waaye ay jàmbaar ñaan ay sët yu sell yu tey mm. sët yooyu ñu ñi ñu bàyyi ñoo ay jàmbaar loolu nag lañ fas yéene AIS taxaw ngir sàmm ko ndax am na ñoo xam ne lii dañ ko bëgg a xajamal wala ñu bëgg def leen lool nag duñ ko nangu moo tax ñu ànd nekk benn ñoo indi njaal mi di ñaan yàlla yàlla fi géej euh, sunu bàjjen boobu Seyda Fatima Zahra yàlla ko yàlla yóbbu ci jannat firdaws boole koog euh, maanaam yonante ya boole koog suhadaa yi boole koog saalihiina waaye boole koog waay juróomu sell Alaaji Ibrahima Ñas euh, ci barke mag ñi wasalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatu